والقلم وما يسطرون ñi ngi jël kàddu ci e, turu société bi nga xam ne moom moo tudd C3S e, c 3 e, ab tënk la rek boo xam ne mooy compagnie Serigne Seck Sénégal ñi ngi nuyu ki nga xam ci ni mooy IA te moom muy nekk koo xam ne dafa bokk ci ñi nga xam te ni dañoo taxawal daara ñun bu fekkonte ne dañuy wax ñun waa daara ak waa alxuraan moom mooy suñu ministre ñun moom bu dikkee ci jotaay bi rek day mel ne li ñu soxla woon ci autorité yépp ñëw na muy Abdou Aziz Ba muy koo xam te ni tamit daaw ak daaw jéeg yépp mi ngi ànd ak ñun liggéey bi euh, bu ci bu moom bu jaalee tamit ki nga xamante ci nii moom la tudde bis bi mu Cerno na Alfa Ñang niñ ko waxee léegi dañuy tànn dëkk bu ci nekk dañuy tànn ci ñi nga xam ne ay daara lañu yore nekk ci seeni waajur yor ay daara ñoom ñuy doxal daara ñu ciy tànn ñaan comme ni ñu ko waxee léegi rek bi ñu jógee ci euh, bu jógee ci moo ci at mi daaw ak daaw jéeg kon ren moom lañ ko tudde tey ñaan déwén tamit ñu tànnaat keneen ci waa euh, maatam mën ko koo tudde incha allah taala mu di nuyu nag mbooleem ñi nga xamante ni nii ay kilifa lañ di ay sëriñu daara di ay ndey daara di ay donga daara ñépp ñi nga xam ci nii ñëw nañ ngir fekke jotaay bi ngir ñu mën a sargal ñi nga xamante nii ñoom ñoom la yàlla dogal ñuy nekk suñu kalam ñoom ñoo jiitu ci ñi nga xamante ni ñoom lañ doon jongalteel tey jii nag ñu war a xam ana ci ñoom kan moo ci raw ñu ñett ñi ci raw ñu war leen a génne kon tey jii kenn ci ñoom ku ko xamagul amul C3S nag ab tënk la rek boo xam ne eh, mooy compagnie Serigne Seck Sénégal mooy eh, booy sooy génn wurusoo gi di duggumaatam am na benn bitig boo xam ne mi ngi ca bunt ba te mu nekk couleur boo xam te ni bu jaune la ak bu ak bu bleu ñuy jaay aluminium ak verre kon ñooñu ñooy compagnie Serigne Seck Sénégal Serigne Seck Sénégal nag li dañu wax ko Serigne Seck moom moom moo samp société ba suñ borom barkeel ko ba mu egg fi mu egg mu ñu tuddee ko ko sëriñ sekk tamit mu nekk koo xam te ni ab sëriñu daara la daa yoroon daara di jàngale comme ñu ëpp ci ñu toog fii eh, mu fekk tamit ay wajuram yor ay daara ba ci maamam mi nga xamante ni moo mel ni wajuram bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo daan bindal sëriñ Touba ca njaareem yàlla def kon xiir ko mu ci mu jël mbindab alxuraan boole ko ci eh, RSE mooy resi mooy euh, responsabilité sociétale des entreprises mooy société boo xam ne dafa nekk Sénégal da nga am warloo ak ak sa askan eh, mooy di def lu jëm ci ñoom loolu nag société bu ci nekk da ngay yaay xool fi nga xam ne moo la gën a jubbu rek yow nga yëngu foofa kon yaatal mbindam alxuraan dafa bokk ci responsabilité eh, yi nga xam te ni société bu nekk Sénégal da nga koo am war ko siq ak askan wi c es moom yàlla dogal comme ña ko jiite ña ci ëpp ay waa daara lañ moo tax ñoom ñu taamu mbindam alxuraan def ko seen yënguwaay c 3 tamit ñun ñi ñëpp mbaa ñu ëpp ci ñun jàpp naa ne ñi ngi jàpp ci liggéey ba loolu nuñ koy amee ana loolu nu mu amee kenn ku ci nekk bu la yàlla dogalee nga am looy liggéeylu moo xam bunt la wala palanteer wala lu jëm sa bâtiment mën naa am yow xamoo C3S waaye menuisier aluminium ba nga xam ci da nga koo woo kooku moo xam c kon kenn ku ci nekk fi mu toll nii li euh, li c 3 na ba ci yow kon amaana da ngaa xamul C3S bi nga xam te ni moo lay liggéeyal xam nga ko kon c tamit kenn ku ci nekk danga am tegtal ci ne la muy liggéey yaa ngi ciy jàpp bu baax a baax. C3S euh, comme ni ko sëñ euh, Alaaji Njaay waxee moom dafa gis ne arxuraan. bind gi dafa nekk lu mënta ñàkk ndaxte am na ci jamono yi ñu bari xam nañ ko mooy dañoo génne ay ay kaamil yoo xam ne machine moo koy bind man ordinateur moo koy bind ordinateur nag lépp lu muy bind nit mën na caa dugal ay baat nit mën na cee génne ay baat mu ay yàq yoo xam te ni mu ngi tàmbalee am ci alxuraan ji te bu fekkutoon dënd góor yàlla yi mokkal ko mën koo bind buñ demee ba ci kalam mënees na koo jaxase kenn du xam la na mooy alxuraan. te waaye kenn ku ci nekk ci yéen ñi bu ñu indiwoon ab kaamil ba teg ko fii buñ koy ubbi rek na li li yàqal lii bokku ci loolu mokkal moo ko maye mokkal gi moo ko maye te mokkal gi li koy tax mu wér dëggantaan te doo ko futt benn yoon mooy des koy bind kon bind gi ak mokkal gi mooy programme boo xam ne C3S koo jël nangu cee def financement pour ay formation ci wàllu rasm nangu cee def ay financement ci di imprimer ay téere ndax dafa am actuellement nii boo xoolee moo ci wàllu mbindin Sénégal ni ñu tàmm binde bokkutoon ak bu njëkk ak réewi naar yi li ñuy binde waaye ñàkk jàppandik téere yi nga xam te ni moom la ñuy bind ci réew mi ñàkk gi ñàkk a tax na ba dañoo mujj di jël téere yi ñu imprimé ci bitim rek duñ ko indil nga xam te ni léegi dongo bi day nekk ci diggante ñaari bindi du xam bu mu ci tànn wala bu gën a jàppandi ci moom rek lay binde te kenn ko xam na ne bu dee mbindu arab mi suñ mbind mi am ci réew mi dafa gën a aare dafa gën a aare dafa dafa gën a cosaane loolu nag c kon mi ngi mool ay téere saa su ne fi tool nii di ko séddalewaat ci daara yi ngir ñu amaat ak jàppandal ci ñi nga xam te ni dañuy nekk ci daara yi jàng ngir ñu am fu ñu mën a xool ngir mën a bind loolu lépp ci kon programme la boo xam te ne nii comme ni ma ko waxee rek comme c moom dafa jàpp ne mook sëriñu daara yi nga xam te ni dañoo nekk ci daara yi di ci jàngale moom dafa bokk ci ñoom ñoom dañoo dem toog di jàngale moom tamit dafa war a nekk ci njàng mi waaye nekk ci geneen wet rek ànd ak ñoom kon ngir bañ a euh, kii bi gudd ñu bëgg balaa tisbaar li ñu taxaw ñu jóg moo ñu sargal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk suñu kalam ñu gàttal foofu yemale ci waxtaan wi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun